faate pétrole ak gaz ci lu yàggul dara loole nag jur njàkkare gu mag ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy xeex lépp lu jëm ci changement climatique tax na ba ñuy artu autorité yi ngir ñu mën see teel a jóg. dañuy nekk ci benn risque bi mooy seen kër yi yàqu tër yu daanu euh, espace bi doon am pour mën a def seen i activité dootuñ ko amati. ñi dëkkee ci lu sorewul dara géej gi. doon ñu mbir mi gën a sonal lu bari ci meññeef bàyyeekoo ci géej gi mel ni lu tàmbalee raar te loole lenn waralu ko lu dul changement climatique bi suñu sukkandikoo ci yile acteur képp koo xamante ne ni yaa ngi dëkk si booru géej gi màggee fa nekk bokk ci culture yooyu buñ la nee dootoo demati géej wala wala géej gi mënatoo faa mënatoo faa toog wala mënatoo faa doxantu loolu. yaakaar naa ne. ñoom ñi leen nag ñoo ngi woo képp kuy borom ndombo tànk ngir mu gën a dugal loxoom ci xeex bi lay euh, àdduna bi mouvement bi ñu gën a gis mooy ñi ngi jéem liggéey en tout cas pour am ay technologies yi nga xam ne euh, du am du du émettre ay gaz à effet de serre maanaam technologie yi ñuy wax technologie yi vert ooyee verte technologie verte nag gaz ak pétrole bokkuñ si. et donc lu mel noonu wane ni que donc jëmbat ay garab. lu am njëriñ la pour ñun loolu war nañ ko def tamit ci suñu dëkk yi parce que dina tax ba nga xam ni tàngaay bi fa waroon am pic de chaleur yooyu dina wàññeeku. ñuy woo décideurs mondiaux yëpp ngir ñu dugal seen loxo ba li ni mel ñu mën koo xeexandoo. képp koo xamante ne ni yaa ngi dëkk si booru géej gi màggee fa nekk bokk ci culture yooyu buñ la nee dootoo demati géej wala wala géej gi mënatoo faa mënatoo faa toog wala mënatoo faa doxantu. loolu yaakaar naa ne. ñuy woo décideurs mondiaux yëpp ngir ñu dugal seen loxo ba li ni mel ñu mun koo xeexandoo.